jëm ndeysaan final o yàlla ndeysaan diggante Fambouda Sarr Ndiol Géant le 29 avril 2023 ndeysaan ici à Mbassis Lop diggante Fambouda ak ki nga xamante ne moo di Ndiol Géant ndeysaan arbitre bi sifflé na ndeysaan ñuy bëggee waa 100 pour 100 bi yëpp waaw waaw ndeysaan képp koo xamante rek abonné goo ci Mboulouk TV bi ndeysaan demal nga abonné bos kolos bi ñu dugal nga bokk ci ñi koy njëkk jot waaw ngeen abonné partagé lien bi di commentaire waaw ndax mooy ñu yombalal suñu liggéey ndeysaan di ziar waa 100 wow cent bi yëpp waaw waaw rawatina suñu président Gora Fall ak ki nga xamante ne moom vice président Mamadou borom Sirman ñoo ngi lay bëggee di la siyaar waaw waaw di siyaar Ablaye Ngom sama doomu ndey waaw waaw ñoom Seeku Caare siyaar nañ leen bëggee nañ leen maa ngi siyaar waa Mbulum du ma leen fàtte waaw waaw ale yaa yaa ko ndeg waa te kono ndeysaan kaaga nange soɓa cuune kamo lang kaaga o nananga no ande in way phase finale Mamouda Sarr a ƴufa jangan Ndiol Géant Fagne waaw waaw Ndiol Géant xa rokan Mamouda Fagne waaw waaw Ndiol a fa ey waay ee doole Ndiol Géant Ndiol Géant Mama Fambouda Ndiol Géant Mama Fambouda